di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalib yi di jiital ci nuyoo bi ak euh, siyaara bi sëriñ Muntaqa al Basir di ko nuyu te di ko ñaanal tawféex ak taysiir waaye tamit di dalal Baye mi nga xam ne Baye Sall di ko dalal di ko ñaanal moom it tawféex ak taysiir di wax ci kàddu ndaw ñi nga xam ne mooy waa Looyeen mu mel ne ne comme ni ko waxee njëkkoon nañ fee ñëw avant ñuy màggal. waaye bi ñu fi ñëwee dafa am ay kàddu yoo xam ne dañ ko waxoon ak Baye Sa Sylla na ko dañu ko war a ab Ablaye Sylla na ko bëgg nañ koñ bi ñu sëkkal ñu ko waaye tamit bëgg nañ koñ bi ñu def ci ay làmp mu mel ne na kàddu yooyu biñ ko waxee ba noppi Baye Sa Sylla mu def ci ab taxawaay boo xam ne bu jéggi dayoo lu jafe ci ab politicien muy lan muy ko wax la dara defaat ko wax la wax dara digg la dara ba noppi jëf ko lu jafe ci politicien te Baye Sa Sylla dama koy dégg muy wax ne ñoom duñ ay politiciens ay entrepreneurs lañ donc kon loolu wane na ko fii ak màggal gi avant ñuy màggal yaakaar naa quatre jours moo des ci màggal gi ñu ne ko mbedd yi lañ bëgg ñu ko sëkkal ñu sëkk mbedd yi ñu ne ko mbedd yi kat làmp yi dafa leerut yaakaar naa biñ démb fii démb fii ci heure bi ñu ngi ci mbedd yi pour leeral koñ bi mu mel ne ne Baye Sassy la li nga xam ne tey ñun ak moom lañ digga woon moom def na ko kon damay wax ne yéen jeunesse bi nga xam ne yéen a dëkk Loyeen Baye wàcc na Ablaye wàcc na lan moo des muy yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ci koñ bi ngeen jàppale ko parce que nit ki bu fekkee dalay jàppale pour doon bu lay jàppale bu la jàppalee ba nga gis loola yow it da ko war a jàppale ci nan lañ koy jàppale muy que ñu def ay mouvement ba am ay groupe yu bëri tey ñu fexee wutal ndaw ñi nga xam ne amuñu carte d'identité ñoom ñu am ko ku ko amul tamit mu jëm ko lijjanti ba am ko bu ko amee mu def la tout que tey suur bi nga xam ne moom lañ soxla carte d'identité yooyu ñu dem voteel président Abdoulaye Sylla 2024 mu nekk président parce que tamit jàppale nañu ci bépp côté muy que ki la say mbedd ba nga mën cee jaar mu laa mu leeral ay làmp ba nga xam ne koñ bi leer na nañ kooku tey deseelul sa dara ñun nag ñoo ko deseel ñun jeunesse bi ñun ñoo ko deseel kon ñun lu ñu war a def mooy woo suñu yaay yi ak suñu baay ñu ànd ak ñun liggéeyal euh, Abdoulaye Sylla parce que Abdoulaye Sylla def na li mu war a def lépp Baye Sall tamit def na li mu war a def lépp kon yéen jeunesse bi nga xam ne yéen a dëkk loo yéen yéen a des lu tax ma ne la li yéen a des parce que li ngeen bëggoon lépp ci moom am ngeen ko ci moom instant bi amuñu leen lu ñuy wax loo xam ne tey loo xam ne tey mën nañoo lu ñu wax rek mu tuut ci baaraam parce que buñ nee làmp yi mu ne defar naa ko bu buñ ne yoon bi mu ne defar naa ko kon yéen yéen a des leen nag laa leen xamal képp koo xam ne ab sën la mu fexe ba bokk moom na fexe attiré waat lu tolloog dix personnes ci moom kenn ku nekk bu defee loolu incha allah di leen réussir ci li nga xam ne mooy ci liggéey bi ñu nekk di leen wax ne nag mbir mi moom mbooloo la rek buñ booloo lépp luñ bëgg am dinañ ko am ndax ak jamaatu rahma di leen ñaanal nag bunt bi nga xam ne fëgg nañ ko muy euh, fexe président Abdoulaye Sylla 2024 incha allah mu nekk cinquième président de la république incha allah maa ngi ñaan ci euh, ki nga xam ne mooy borom dëkk bi di Cheikh Al ci barkeem mu def ko di wax. comme bayit bi nga xam ne tey moom la Sëriñ Tuubaa di wax ci nax euh, nahjul xaadaal xaaji mu ne waman xaraxal baaba wala ja wala ja Sëriñ Tuubaa nee na képp koo xam ne dafa fëgg ab budd ab bunt rek mu tàbb ca wala mu nuuru ca maa ngi ñaan bunt bi nga xam ne fëgg nañ ko yàlla nañ ci tàbbi ba nuuru ca. affaire yi sérieux na sérieux boo xamante ni lu ñu mën a yokk communication bi rek mu gën ko quoi ñu fexe ba looyeen yëpp des ci loolu nag suñu combat la ñun ñi fa dëkk bu fekkente ne lii day amaat wala bu ñu fii nañu fexe ñun ñëpp ba looyeen yëpp xam li xew quoi xam li nga xamante ni moom moo xew ak li nga xamante ni ci lan nekk. beneen affaire bi mooy comme ni ko jëwriñ waxee rek dëkk ak koo xamante ni daa bëgg am daa maanaam daa may aspiration pour nekk président loolu daa nekk loo xamante ni daa jafe. te bés boo xamante ni lii sotti na ñun ñëpp la Sénégal la sottil waaye ñun ñëpp la sottil fépp foo dem ci Sénégal nit ñi ñu ngi bëgg dëkk ak koo xamante ni waxuma la sax président mais député kese la donc lii suñu yëf la ñun ñëpp. bu sottee man la sottil bu sottee xaarim la sottil bu sottee ñun ñëpp la sottil donc jàpp naa ni ku nekk si ñun koo xamante ni looyal nga dëkk wala sax dëkkoo fi dañoo war a def la tout ba lii nekk loo xamante ni lu tasaaroo lay doon ba ñëpp jot parce que looyeen du koñ bii du fii kase quoi des na lu bëree bari nañ fexe ba affaire yi gën a yaatu jàpp naa ni communication bi des na bu baax a baax bu ñu amee lu ñu war a mottali ci loolu communication la li ci des nag mooy man damaa bëggoon a leeral tuuti rek ci li nga xamante ni mooy C50 ñu bëri ci ñun dañuy dégg C50 waaye xamuñu exactement lan mooy lan lan la wund quoi lan moo ci nekk waaye li ngeen war a xam mooy ñii li leen yëkkati nekkul politique quoi nekkul politique bi nga xamante ni moo xaw Sénégal bokk ñëw daal di def ay promesse daal di dikk ay nit boo leen diggee li nga leen dikk wala boog nga am li nga war a am ci ñoom nga daal leen di wan ginnaaw nekk sa yëfi bopp loolu nekkul li nga xamante ni moo ñu yëkkati li nga xamante ni moo mooy lan dañoo seetlu ne Sénégal ñi nga xamante ni ñu jiitu bu fekkente ne liggéey daa am ci dëkk bi mu nekk tali bu ñu war a boo xam ne dañ ko war a tabax wala mu nekk marché bu ñu war a tabax wala mu nekk pont bu ñu war a tabax ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkk bi am fi ay entreprise maanaam am fi ay usine di fi liggéeyee ñooñee dañ leen dañ leen di dañ leen di jël dem jël ñoo xamante ni soit ay chinois la ñuy doon ay français wala ay anglais jox leen liggéey boobu ñii nga xamante ni ñooy say 50 loolu mooy seen loolu mooy li nga xamante ni moo moo taxawal kuréel gii nii nga xamante ni moo am parfois ci suñu nguur gi ñu koy seetlu te jàpp nañ ne bu fekkente ne liggéey daa am ci réew mi ñu jox ko doomu réew mi wala ñu jox ko ñi nga xamante ni ci réew mi lañ dëkk loolu ci réew mi rek lay des loolu ci réew mi rek lay des te itam suñu ay ñun ñi ñun ñi nga xamante ni ñoon seen ñooy seen ay doom wala ñun ñi nga xam ne seen jarbaat lan wala seen ay doom ñun ñi ñoo ciy liggéey nañu fexe kon ba lii nekk loo xamante ni lu yaatu la nañu fexe ba ku nekk ci ñun jàpp ne C50 sa c bopp la te itam ku nekk jàpp ne pour mu yaatu yow yaa ko war a te bu ñu jugee ci lii comme ni ma ko waxee rek ñu jéem a fexe fu nekk fa nga dëkk te day commencé ci kër gi nga dëkk commencé ci quartier bi nga dëkk commencé ci ñi nga xamante ni ñoo la wër nga tasaare mbir mi def ko sa yëf ñu fexe ba affaire yi daal jëm ci kanam. tey sant sañ Saliou mi di sant Abdoulaye Sylla ndax sëñ saaliw ñetti fan moo di ci màggal gi dajeeg àjjuma mu wooñu Cheikh Fallou joom ñëw fa kër ga ni ma jey na ba ma ne ah mu ma xale dañ maa yónni ci yow ma ne ko ma yónni mu ne ma Abdoulaye kii de Baye Sall Sylla de moo ma yónni ci yow. ma ne ko man de dëgg la Baye Sall la mun naa ma ne ko bu ma yónnee ci yow dinaa sawar ndax li tax dinaa sawar mun naa ma ne ko ñoo bàyyam la woon démb tey soog di ñëw ndax yàgg nañoo dimbali te booba dara xewut man nag yàlla dogal na am naa mbooloo boot naa mbooloo ñi ma boot it demuñ ci daraay caaxaan walay tappale ba mu dikkee wax ma koot ba tey am naa ci yaakaar sant naa ko ndax li tax xëy na jox ma ndékki dig ma añ may xaar añ ba añ ba ñëw na heure bi démb heure bi démb ñu ngi ci lamp yi di ko monteel lamp laa ko jàmbatoon ak ndox mi lépp mi ngi ci daw dawaaram leer na ma ne kala jox ndékki jox la añ bu la diggee reer jox la ko rek lay mën a def man nag maa ngi ñi ma àndal ñëpp ñu ngi ci ginnaawam li mu bëgg dinañ ci ànd moom tey ñaan nag yàlla mii borom ndam yàlla na ko may ndam. waaw xam nga li Pape Moussa sama mbokk ki ma fi indaale Pape Moussa di wax rek il faut ñu leeral leen C50 ndax euh, baat yi si nekk si biir dafa dafa xaw a tubaabee lool. léegi loolu dafa leer dafa dañoo war a indil leen ay leeral pour ngeen mën a comprendre suñ yaay toog fii wala suñ mbokk yi nga xamante ne nii maanaam se jànguñu nasaraan xam lan moo waral loolu. bu ko defee boo leen ñibbee seen kër yi bu ngeen eggee di ngeen mën a wax seen ki ngeen bëgg a ki ngeen bëgg a wala ki ngeen bëgg wan projet bi mu xam lan mooy C50. Ablaye Sylla dañ leen ko expliquer ci ay kàllaama yoo xamante ne nii moo gën a leer. yoo xam ay olof la Ablaye la dafa doon koo xamante ne nii benn entrepreneur la bu créer entreprise boo xamante ne nii dafa dem ba seetlu ne euh, marché yi ñuy joxe dafa dem bañ koy jox ñoo xamante ni dëkkuñ ci réew mi ñoo xamante ne ni jotewuñu dara ak réew mi te loolu dafa doon loo xamante ni day handicapé wala day lor suñu askan ndax bu buñu demee ba nga xamante ne nii suñu ndawi réew mënuñu liggéey euh, liggéey ci réew mi te loolu lépp yéen a ngi koy gis ay ñii ndaw yi di dem ay Nicaragua loolu lépp loolu doo yore li ko indi Abdoulaye Sylla bu ko neexoon am na li muy am ba pare bu ko neexoon dañuy seetaan wala dem ànd ak njabootam gii du dara du ko ci fekk waaye moom approche bii mu indi wutee naag politiciens yi niñ ko doon defee maanaam di ñu nax ndax suñ yaay yi fi toog tey kenn ku ne bëgg nga loo yóbbu sa njaboot ci loolu campagne bi mu jël wutee na ak ni ñu daan ni daan campagne ñu ñi fi toog ñëpp mën nañ fee bénéficier nan lay demee suñu yaay yi mën nañ leen di leen former ci dara moo xam transformation wala bayum noor wala lu mu mën a doon moom da leen jox ay financement yooyu yëpp da leen koy def da leen koy jox su ko defee ñoom ñu ba ci jeunes yi ñun ñi fi toog ñun ñëpp mën nañoo bénéficier ci loolu loolu nag dafa baax ñu leen koy wax ndax nit boo ko bëggee mu ñëw fekk si la ci li nga nekk da ngaa war a xam lan nga koy expliquer wala lan nga koy convaincre mu mën a ñëw adhérer ci li nga nekk. léegi nag loolu lépp di ci baax ñu leen koy wax maanaam Ablaye Sylla doomu réew mi la boo xamante ne nii dafa bëgg a jàppale ak askanam malgré que opportunité wala alal jim am sax mënoon na ko cee bañ a fekk mais dafa ñëw taxaw ngi dimbali ñun ñii nii te olof day wax naan gën a jege gën a yey Ablaye Sylla ñoo ko gën a jege kon ñoo gën a yey ci moom. waaw loolu lañ bëggoon leeral leen mu leer seen bopp ba nga xamante ne nii bu ngeen demee kat ku leen laaj c cinquante bii lan moo ko wund wala lan moo lan mooy euh, euh, lan moo ko waral di ngeen ko mën a expliquer moom nga xamante ne dina mën a adhérer ci ci lii nii. léegi nag moom moo tax euh, mu postuler candidature pour nekk président ci élection 2024 te ñun ginnaaw bu ñoo ko gën a jege kon ñoo ci gën a yey kenn waruñu cee ëpp fulla Ablaye Sylla kenn waruñu cee gën a ëpp pas-pas kon dañ ko war a jàppale ndax ñun ñoo dëkk ak moom. comme que ñu ñëw dëkk ak moom nag ñu ñoo war a jàpp ak euh, mu am maa li mu nii ñu fexe ba mu luñ ci mën a def ñu def ko ci élection yi vingt 2024 incha allah. ku xam si la xamee ko si nit ku baax ñu xamee ko ci Baye Salmé projet bi nag leen dong moo ko waral comme ni fi ñu fi jaar léegi ni ko waxee C50 lu nit ñi war a xam la nekk na loo xam ne si li ko gën a tax a jug mooy wàllum dictature mi nga xam ne am na Sénégal. loolu bokk na ci li tax projet bi euh, ku si mel ne Ablaye la taxawal ko ak ñi mu àndal 2024 incha allahu rabbi candidature lay doon te bu soobee yàlla ñi ngi koy ñaanal ci baaxu yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba mu nekk président Sénégal loolu lañ koy ñaanal donc li waraloon jataay bi tamit lenn dong la dañoo ànd ci dëgg ak jubal ñu bañ di naxante parce que politique dafa bëri ay mbir yu ci nekk li may ñaan yàlla ñi fi nekk ñëpp yàlla na leen yàlla may fekkee ak tal ba mille vingt 2024 ñu tal ko jël seeni i dem votel président Abdoulaye la yàlla yóbbu ko ci palais ba si jàmm ak salaam Sénégal yëpp kontaan ci ñi fi teew nag maa ngi leen di ñaan képp koo xam ne si ne amagoo carte d'identité wutal sa extrait nga ñëw ci Baye Sall mii mu defaral la carte d'identité parce que dafa jot parce que buñ dajaloo mbooloo mille personnes yoo xam ne kenn amu ci carte tamit loolu ay naxaate la kon na nit ñi dem wuti kar dante xam ki xam xam xam xam ki àndal na kal la parce que bay si sa weewu tànk ndax nga mën a fi ngay dox gën a jege gën a yey te Ablaye si la sunu mag la ñenn fii sunu mag la sunu kilifa la ñenn tamit ay yaayam lañ ak i bàjjanam kon daal leen laay ñaan nañu wuti carte dante mbir mi carte dante la topp si ginnaaw oto di yuuxaloo wala nga soli tiset di dox fu la neex naan nii la nii la nii la te amoo carte d'identité boo wootee amul sens kon daal fii ñëpp képp ku fi nekk amoo quarante man boo ñëwee si man euh, dinaa la yóbbu ci Baye Sall incha allahu rabbi mu dina la toppatal carte d'identité nga xam ne bu boobaa moom incha élection 2024 dañuy dem voté si jàmm ak salaam yàlla dénk ko pale bu sell bi mu nekk fa di doxal jiite Sénégal yëpp waaw loolu rek laay ñaan képp ku fi nekk amugoo carte d'identité boo jugee nañ ci dox. maa ngi sant sama mbokk yi nga xam ne nag bi ma nee leen jug leen dañoo jug muy waa guy mbind kii sunu yaay la sunu yaay la ku baax la ku jàmbaar la ku nangoo liggéey la waaw bi ma bi ma ko waxee booy yi démb la démb démb laa ko yëg démb ak barki démb ñu ngi woon barki démb ñu ngi mbàkke baar yi démb ñu ngi looyeen di defar ay làmp defe naa waa looyeen moom jooyatuñ leeraay def fépp fàtt nañ ko daa mel ne kon kon loolu ak sant yàlla la dafa jaar ne leen dinaa ko defar xëy suba defar ko te loolu yombut waaw kon loolu ak sant la di sant sama mbokk yi nga xam ne bi ma leen waxee jug leen dañoo jug amuñu lu dul projet bi waaw c cinquante dafa war a yaatu ñëpp xam ko waaw Baye Sall tiset yi nag na doy mu saf sàpp si dëkk bi bu ko defee nit ñi sol ko fu ñu mën a dem am lu ñu wax waaw loolu laay ñaan yàlla 2024 yàlla na ko suñu borom def président ci xewal ak dal ci barkeb Serigne Touba coow du am dara doom boo gisee li tax tey jii ñu toog fi euh, ça fait presque moins dine semaine biñ fi toogee léegi bi biñ fi mujjee toog jataay bii nii ak léegi boobaak léegi semaine lay tollool wala lu ko gën a néew ñu toogoon fi waxante fi waxi gor ku si ne mais ñu ñu ñëwoon pour représenter mouvement C50 bu Touba Loyène bi léegi bi àndoon seeg Baye Sall Sylla mi magab bi moo ko jiite di Ablaye Sylla amoon ambition nekk président de la République du Sénégal donc délecté woon ko liggéey boobu pour mu ñëw waxtaan ak askan wi léegi man bi ma ko waxee dama ne ko loolu rafetlu nañ ko léegi nan comme bay sawewu tànk léegi man naa dem koñ bi ma dëkk bu ko defee ñu commencé foofu boobu nag gis naa ñëw naa gis ay quelques maires yi nga xam ne ñoo yor euh, kii bi euh, mbootaayu koñ bi pour waxtaan ak ñoom te ba saa Zakar bi ñu fi toogee am na lu mu waxanteeg ñoom si ay kàddu non problème mu suuf si lañ njëkkoon wax suuf si keroo bi muy woo magam bi bi coo biñ waxtaanee ba pare la woo ki yor problème mu suuf si wax ko ko mu wax ñu indil ñu fi luy tolloog fukki benn suuf waaye liggéey bi euh, booba màggal gi jàmp na te programme bi bëri woon na lool man biñ ma woowee si guddi gi biñ ne ginnaaw suuf la màggal si guddi boobu da fekkoon ma génn maa ngi woon ko côté kër sëñ Abdou Karim léegi ñu ne ma oto yaa ngi ñëw oto yi bi ñëwee ndakate ñaari oto ñoo ñëw wàcce bi suuf si suba gi ñu war a ñëwaat indiwaat yenn li des si suuf mais liggéey bi xat-xati màggal gi yooyu jat leen ba suuf sa mujj mujjul mujj li si des mujjul ñëw waaye nag xam nañ ay ambition ginnaaw waxoon nañ ko ko moom euh, ñi ngi rafetlu jéego bi mu si def ndaxte amoon na yéene koñ ji yëpp mu sëkk ko ba nga xam ne benn ndox du fi taawati loolu ñu ngi ko si sant ginnaaw loolu tamit waxoon nañ ko ni koñ bi dafa am problème mu éclairage Euh, mbedd yi dañoo lëndëm mu dimbali ñu si biñ ko ko waxee tamit moom itam boobu ba léegi mu ngi sol euh, daalam euh, sonn si lool démb rek yaakaar naa ni ñii duñ ma bàyyi ma wax loo xam ne amul démb ba heure bi ñu ngi fi di samp ay làmp yaakaar naa kon fi mu toll nii leer na naa ñi moom waaw leneen nag am na lu mu di diggante yaa mbootaay gi mbootaay gi tamit yaakaar naa ni ñoom lam leen waxoon tamit am na lu mu si def liggéey nag lépp xëyul xëyul sotti waaye nag boo gisee jéego yi nga xam ne jug na euh, taxaw si am na yéene lépp lu ngeen waxoon nag moom rek mu taxaw si ba keroo loola sotti loolu ñu ngi ko si sant te Baye aussi tamit yaakaar naa ne magam bu ko directé mu ñëw fii si koñ bi pour waxtaan ak waa koñ bi yaakaar naa loolu lu rafet la ndaxte peut-être Baye ngeen gën a xam te Baye man depuis xale ba léegi ñooy ànd lépp lu la wax rek ma duma la wax lépp lu mu la wax dina ko def de parce que loolu yàlla dong moo ko man mais lu mu la lépp lu la wax rek am na yéene def ko. dañoo ñëwoon pour samp si cellule bi liggéey bi ñëpp gis nañ ko léegi problème bi léegi fii suba wala ginnaaw suba dañoo bëgg a commencé ay ay porte à porte léegi ñun ñi fi teew kenn ku si nekk sa kër boo àggee information bi na jàll. ñu yee ñu yeete maanaam gën a jàllale information ku nekk xam lan mooy rôle C50 kan mooy Ablaye Sylla yan liggéey la yan liggéey lay def ndaxte presque Ablaye la moom kenn du ko représenté presque ça fait 6 ans yoo xam ni mi ngi fii si biir Touba du su koñ du si koñ bii rek lañ nekk mais ko ñu bëri boo àggee wax leen kan mooy Ablaye Sylla ñoom dinañ ko xam presque chaque année ñoom dinañ ñëw taxaw si liggéey bi màggal gi ba nga xam ni li nga xam ni doomu aadama yi dinañ ko soxla lépp ñu taxaw si pour affaire yi mën a mën a jaar yoon bu dee am na ñoo xam ne quelques bons volontaires yoo xam ne ñu ngi si koñ bi ñu jàppale ñu ñu distribuer ko léegi ñu xool man lii nii ñi nga xam ne programme bi ni mu tëddee bu ko defee ñu expliquer ko ñi dëkk si kër yi bañ gën a xam programme bi nan la demee. ak club bi lan mooy lan mooy kiyam lan mooy but bi le but waaw ñu jàpp si ñu ñëpp liggéey bi suñ liggéey la ñu ñëpp kon bu kenn taxaw di xaar kenn ku nekk fa nga dëkk na nga fa commencé après liggéey bi law quoi parce que Ablaye doomu koñ bi la. te yaakaar naa ni Sénégal ku nekk yaakaar li nga bëgg mooy président bu amee président bu dëkk si dëkk si région bi nga dëkk pour mën a dimbali région ba rawatina rawatina ñu ne gox bi nga dëkk nag. loolu kon suñ combat ñun bu soobee yàlla dinañ si jàpp luñ si man rek dinañ ko def incha allah. ñoom doom yuñ jur lañ rek ñu juddoo ci koñ bi yaroo ci koñ bi ñëw bëgg ci koñ bi lu baax fekk ci fi seeni yaay ak seeni rak ak seeni mag ak seeni soxna. la ma ko waxan keroog noonu naa ko bàyyi saal mu ne mu ne ma ma ne ko yow loo bëgg ci koñ bi boo ko fi amut ci yow la ndax jigéeni koñ bi jàmbaar lañ ñun jàppale rek lañ bëgg waaye yu mel nii dañ ci doon dox ba yàgg doxatuñ ci ndax dañ ci yàgg dox te gisuñu ci njariñ moo tax ñu bàyyi woon ko man keroog bi jay na ba saar ñëwee wax ma ko man dama ne ko yooyu doxatuma ci ndax yàgg naa see dox te awuma ci njariñ ndax koo xam ne ba ma ci dalee dox kamay boot am na ñaar fukki at ak ñaar te mosuma cee gis njariñ kon xam nga ne man suñ suñ ma wooyee ma wuy siwaat yàlla ak doom juma ma jura tax ma ñëw ndax Baye Sall dañ koo jur mu juddoo ci koñ bi yaroo ci koñ bi li ma ko waxan keroog nag ne ko moo manqué ci koñ bi am na lum ci def bii ñëw na ci koñ bi monté na fi ay làmp waxan nañ ko suuf si suuf seet xañ na jaam ak pexeem yàlla ak dogalam dañ koo dañ ko dañ koo teel te programme waaye kon xam naa kon ni mu defee làmp yi ni la koy def te muy lu wér yéen yéen ñi nga xam ne yéenay jigéen ñi jàppale leen ko li mu bëgg defal leen ko ko boo xam ku ku ci am dentité na ko wax ku ci amut dentité na ko wax ñu wutal la ko bu ñu yeggee ci bis ba bu ñuy wate ji nañ ñu yot oto yu doy ñun ñëpp ñu dem wateel ko ndax mbokk la dëkkandoo la te Baye Sall mais jar na lu ne ndax baay Sall am na yar am nay teggin ndax ba mu nekkee ci koñ bi ba tey kenn musta dégg ñu ne Baye Sall werante na feek mag wala jooyloo na fi gone bu fekkee ne dina ko def kon bu wootee ñu ne ah gone gu réew googu de kenn du ko wuy waaye ab yaram ak i tegginam moo waral mbooloo mi ma bëgg nag buñ sa yeggee yéen ñëpp ngeen jàppale ko ndax ñu ñëpp a kontaan bii bi ngeen ñëwee te dañ koy ñaanal li nga xam ne moom la bëgg ci koñ bi yàlla na ko si yàlla jox ndam. ku mel ne Ablaye Sylla bu bu ñëwee am ay ambition am ñeneen am ñeneen ju bari ci ci réew mi am ko ci koñam. bëgg jàppale ay askanam bëgg a jàppale ay jeunes yaakaar naa war da nga ko mën a jàppale war nañ ko war nañ jàppale parce que li muy def nii euh, mënoon na ko bañ def muy gis li muy def ñi ñëpp gis nañ ko bu magal Tuubaa jubsee day day day yebal ay camion ñuy sotti ay suuf ci mbedd yi ñuy ñuy ñuy ñuy manque ndox mi pour ñu pour pour bu ñëwee gan yi di mën am fu jaar mais li nga xam maanaam def nañ ko démb ñu ñëpp ñu ñëpp ñu ñëpp ñoo teg bët muy lamp yi ñu doon euh, kii installé ci mbedd mi donc loolu lépp dafa nekk ay action sociale yoo xam ni yaakaar naa war nañ koo mën a apprécier léegi nag nit bu lay jàppale ma yaakaar naa aussi da nga koy jàppale si benn côté ni nga ko mën a mooy fii bëri na bëri na fi suñu yaay yoo xam ni peut-être ñoo amuñu carte nan fexe bu ku ci nekk daa am carte d'identité incha allah bu élection yi ñëwee ñu jéem a jàppale Abdoulaye Sylla pour mu nekk président de la république parce que man yaakaar naa si côté boobu la nga mën a jàppale. ku xam ne nag li ñu fi daje njëkkoon nañ fee daje la ñu diglante woon ak ñi nga xam ne ñoom lañ fekk si yëpp def nañ ko kon li nga xam ne moo des mooy yéen li ngeen diglante woon ak ñun kon ñun li ñu warloo woon ak yéen def nañ ko li ngeen li ngeen warloo ak ñun moo des loolu nag moo waral teewaay bi tey di leen fàttali tamit ne ñi fi ànd ñi fi daje ñii ñëpp dara dajal leen fi lu dul ñu jàppale président Abdoulaye la ngir mu nekk président 2024 loolu moo leen fi dajale. di leen fàttali si biir daje googu nag amul kenn koo xam ne dañ lay dan dañ laa jox xaalis neexal la ne la ñëwal ngir nga ñëw si daje bi kon loolu tamit day baax boo dajalee ay mbooloo nga xamal leen ko te si Sylla nag lim xamee def na ko ci réew mi wala ci dëkk bii di Touba ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp teg nañ ci seen bët bu ñuy wax sax day mel ne wax wax bu bari lay doon waaye chaque jour ñu répété leen ko li nga xam ne moom lay jëf ci biir dëkk bi kon bu ñu fi dajawaatee tey jii dañ leen a bëgg nag li nga xam ne moom lañu warloo ak yéen moom ngeen warloo ak ñun ngeen jaf ko loolu nag ni ngeen ko mën a defee mooy ngeen jàq seen temps comme ñu ngi koy defee sacrifié wu nit ki boo nekkee si mbir dangay jiital bëgg gi ndax nit loo bëggul doo ko doo doo doo doo ci sonn loo xamul tamit doo ci sonn kon nga xamal nañ leen lan mooy mbir mi ak lan lañ ci bëgg faw yéen it ngeen jàppale ñu. te xam ne nit ki nga xam ne day yuutu loo jotagut mënoo di joxe comme que dañoo bëgg moom dañuy sacrifié wu ñun di joxe li ñu am li ñu am mooy suñu xel ak suñuy doole ak suñuy xalaat ñu di ko joxe ba mbir mi réussir soo demee nag ba jot appareil de l'État ba nga xam ne nag da ngay man di bom di bumbi su ko defee bépp jafe-jafe bu ñu am dinañ ko mën a saafara mais bu fekkee ne jotagoo am na loo xam ne mën ngaa wax ne bëgg nga koo def waaye boo jotagut ci mbir mi munoo koo def li tax ñu ñu mën koo def nag ñu mooy ñu jot ci mbir mi li ñu mën a jotale ci mbir mi nag mooy SONES bii nii rek kenn ku nekk sa carte nga am te sa carte mooy sa doole. kon war ngaa xool li nga xamante ki nga xamante ni ne leer na leen ne kii boo ko boo ko boo ko dénkee sa sa sa boo ko joxee sa carte doo ko rëccu ndax koo xamante ni toogagut président di employé plus de mille personnes di leen fay par weer kooku bu yoree réew mi. chômeur bii am ci dëkk bi dina jeex te am na ñoo xamante ni màggal gi lim jëf ci màggal gi gis nañ ko ndax démb rek am na benn benn reportage boo xam ne suñ benn témoignage boo xam ne suñ maam Thierno mi jël na ko. koo xam ne yàgg naa màggal te musta reyu nag am xar la daan rey te trois mois rek la def ci moom màggal gi fekk ko fi mu rey xar ak nag te ginnaaw yàlla suñu Ablaye si la moo te loolu yëpp da koy def te yàlla rek tax kon kooku. ku la dig ku la dig ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nag war nga kaa mën a gëm te sëñ si la digg nañu loo xamante ni war naa mën a tax ñu sacrifié wu ñun suñ biir suñ bopp ngir ngir ngir ngir nekkal ko ci naaj bi ndax moom li warloo ak ñun yëpp mu ngi koy def kon maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi ñun ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo kenn ku nekk fa nga nekk nga samp fa C50 club 50 pour cent de préférence nationale nga xam ne yaa jël sa engagement boobu nga jiite ko te ña nga xam ne ñoom ngay jiite nga bañ a digle diglante ak ñoom wàllum xaalis ñun politique bi ñuy politique nii dafa wuteek politique bi nga xam ne moom la politiciens yi di politique. ñëw di la fay 3000 pour nga ànd ak ñun loolu defuñu ko képp koo xamante ni ne programme bi ñu indi intéressé na la nga ñëw ànd ak ñun te yàlla tax suñu jotee réew mi nag maam duñ fàtte kenn waaye it lu ñu warloo ak yow it danañ ko def. kon ñi ngi leen di wax yéen ñi nga xamante ne teew ngeen fi kenn ku nekk boo yegee nga jottali ko sa mbooloo ma ngay ma nga ma nga am te xam ne mbir mi nag yor naa mbooloo sàngam yor naa mbooloo sàngam doxalu ko da ngay jëf gaa yi gis ñu mën a xam fan nga mane waaw kon dañuy wàcce foofu kàddu gi rek comme que ñu fi jotoon a jaar tënk nañ lépp